ay kàddu yoo xam ni kàddu yu am am solo euh, kàddu yoo xam ni dafa pare pour liggéey voilà pour xarit li nga xam moom mooy gouvernement bu bees li nga xam ni en tout cas fii ak ay waxtu daañu ko daañu ko mën a am. xalifa euh, muy lu am solo loo xam ni tax am nañu mu bett am na ñoo xam ni bettu leen. Mm-hmm. waaw mu bett am ñoo xam leen tey euh, am ñoo xam ne bettu leen ci anam boo xam ne jàpp nañ ne projet boo xam ni. Diomaye da cee liggéey lu yàgg Ousmane porté woon projet bi ñu ànd di liggéey déjà yaa ngi tàmbalee gis ay benn benn yoo yuy génne ay histoire yoo xam ne entre conflit yuy am entre diggante benn lieutenant ak mantooram daanaka créé ci ay conflit di ci fàttali lu mel ni diggante ab Abdoulaye Wade Idrissa Seck diggante Moustapha Niasse Abdou Diouf xam nga diggante tanoor Diw diggante Senghor Mamadou Dia fekk yooyu dafa bokkul dañ ni woon système bi anti système la. benn rupture la soxla changement boobu nag ni mu changé li nga xam ne ba ñu indi ñun beneen projet bu fas yéenee doxal te muy système projet boobu profil yi ko porté déjà parcours bi ñu jaar ci parcours politique ba mën a accéder au pouvoir dañoo wane lu ñu wonewul woon ci doxalin. Uh-huh. benn Ousmane générosité bi nga xam ne wane na ko amul benn politicien bu ko mën a wane ci Sénégal. kenn su dul man du kenn su dul man du doon keneen loolu lañ miinoon a gis loolu lañ tàmmoon a gis. kantaaka nag dem na ba tànnoon joomaay tànn keneen ak keneen jëlee leen fiche jëlloo leen ay fiche fiche mm-hmm. mbir mi dem ñu pare ne ba mbir mi egsi ci joomaay mm-hmm. mami damay njort ni xalifa mm-hmm. gis nga premier ministre bii nii noppi na pour liggéey rigueur bi mu am caractère bi mu am wegeel gi ko ñëpp weg cofeel gi askan wi am ci moom ndax li mu daj souffrir ko ngir askan wi jàpp naa ni ay la yéwén képp ku mu àndal ci biir gouvernement bu mu diriger rigueur ba mu doon def fa mu doon liggéeyee ba génn ni leen liggéey naa ba génn ba ñu rajee ma te sàccuma dina ko def ci gouvernement bi mu piloté benn ministère lu nekk ci ci biir gouvernement am la yéwante doxal li nga xam ne xëy na moom la bëgg. Mhm. kon damay jàpp ne projet bi mu porté woon mujj gi mu dem ba buggul projet bi laal suuf mu yëkkati ko teg ko ci yeneen loxo ba loxo yooyu ñëw ci pouvoir bi kooku wëlbatiku dénkaat ko ñu ànd di liggéey nañu bokkee woon tabax projet bi noonu la ñuy bokkee continuer liggéey ko li ci des nag mooy. ñiy créer ay conflit wala ñiy créer ay historique diko netali wat pour jàpp ni dama nan niveau yi bokul mental yi bokul objectif yi bokul parce que par parcours parcours yi ñu moko woné kon lool nak li ñi xaar moy premier ministre bi équipe bi mi taxawal da na doon équipe bu dynamique bo xamni ni liguey rek la ñuy xaar ci ñom te liguey rek la ñuy gis ci ñom te liguey rek lañu yaakar ni dana ko def te du doon seddo du doon pacho wax na ko répété na ko répété waat na ko démb rek bi muy wax kon kooku dafa noppi pour liggéey gunge ki nga xam ne moom su amee ndam moom moo ciy gën a siggi moo ciy gën a sàggu kon il est temps que moom mu protéger ko du ko tànn ba pare sànni ko wàcc ko ni ko maa la tànnoon Sénégalais yi fal nañ la damay dem toog sama coin déedéet da koy gunge ba mu am réussir mhm. bu réussir moo réussir Sénégal mooy réussir kon euh, premier ministre bi jàpp naa ni mën na mooy doon meilleur premier ministre yi ñu mës a am ci Sénégal. voilà justement c'est important aj naa su démb Ousmane Sonko dégg nañ ko mu yëkk yëkkatee kàddu mooy liggéey la ñu